alors merci beaucoup amis chers fidèles téléspectateurs Euh, bien sûr ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy AIBD ñu daal di recevoir ki nga xamante ni moom mooy euh, Viviane alors tey nag euh, comme ñu koy waxee gis nañ fi ndaanaan bu ne waaye dama fee gis kenn koo xamante ni nii ci millier bi da cee def da cee bay waaram mu nekk koo xamante ni xale yi bu ci duggee yàlla xale yu bari buñ duggee ci bongo yàlla ak moom la waaye nag mu daal di koy taaral rafetal ko il se nomme tout simplement Ouzin Mbaye président son excellence maa ngi lay nuyu <laughs> <laughs> mais di jee daal loo sama xarit borom leeral borom leeral ah TV ma teg ci TV bi yow sama xarit nga sama doomu nday nga mhm. nit ku fonk sa liggéey nga waaye nit ku bay waar nga ci li ngay def mhm. fa nga nekk nag wane na ko leeral mhm. macha allah lépp lu nëbbu rek wala lépp lu lëndëm rek ñu taal lamp yi leeral TV leeral na ko maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay alors tey euh, bu ñu ñëwee fii di la laaj naan la lan moo waral sa teewaay wax bu yàqu la donc dan lay bàyyi micro bi rek nga daat ñuy wax euh, li nga xamante ni moom mooy événement actualité bi nga xamante ni moom mooy Viviane jaloore bu mag bi nga xamante ni def na ko ci bitim réew waaye daal di ñëw indi ko fii ci réew mi donc tey lan moo doon sa kàddu waaw sama kàddu mooy kontaan. Mhm. di ko félicité encore ndax bi mooy ñaari raaya muy jël. may ñëw maag yaat ma caam mii di ko teeru si fii ci aéroport Viviane man ak moom suukar la ak ndox walla suukar ak soow lu muy def daf ma ci boole def nañ man ak moom macha allah benn single bu doy waar tuddee ko ngéntali mu invité ma ci ñu def featuring man ak moom lu muy def danaan Ouzin Mbaye kon tey lii mu am mbégte sénégalais yi lépp mbégte àddina la waaye mbégte hors secteur la ndax dañu ne artiste international mhm. Sénégal bay na fi waaram waaye da koo dem mottali mhm. dem ay kongo mhm. dem ay Mali dem ay Burkina macha allah te ku ne way fi ma tudd nii ñoom ñooy way mu ko ay ndaanaan daal di jël raw gàddu gi indil ñu ko fii ci Sénégal kon loolu suñu fierté la ñun tous les artistes di Sénégal war nañ xool mom moom exemple war nañ xool ci moom macha allah talent wam dalam nangoo liggéeyam te jigéen la c'est une femme intègre capable de diriger la musique sénégalaise kon yéene nañ ko yéene nañ ko quoi. alors euh, ñu daat lay sant bu baax a baax di la gërëm. waaw euh, di la wax ni tey ambiance bi xam naa ni ñu ngi. sagi non yomb tama yaa ngi fi bongo tama yaa ngi fi bongo yeeg yëpp ngi. tey Viviane tey mu dégg-dégg. tey lañ koy teeru. tey fii dina mel ni tufe jaan baa sopp lañ. laa ilaaha illallaah bari ay bal taxut a mën a jam. déedéet ab balay fetal. laa alors ba tey merci beaucoup amis chers fidèles téléspectateurs euh, ñu ngi fii ci ba tey ah di teeru ki nga xamante ni moom mooy Viviane ma ni ku ko def ku ko wax la bëgg alors yéen ñi a Euh, continuer leen geen ñu topp parce que dara du leen ump dinañ leen wan artistes yi nga xamante ni ñoo fi nekk dinañ leen wan euh, euh, teertu bi nga xamante moom mooy Viviane buy wàcc ci ay ci ci avion bi dinañ leen wan lépp dara du leen ump ak Leral TV. ayca merci beaucoup ami chers fidèles téléspectateurs ñu ngi leen di fàttali ba tey ñu ngi ci ay AIBD dañu fee fekk nag kenn koo xamante ni nii référence la ci millier bi nga xamante ni ci lay nekk waaye nag mu nekk koo xamante ne xale yeeg mag ñeeg ñëpp dañu koy topp mu nekk yaat ma yaat ma maa ngi lay siyaar waaw maa ngi lay fay di la nuyu ku baax. waaw mais tey moom xam ngaa ni euh, di la laaj tey lan mooy sa teewaay wax bu yàqu la euh, donc lan mooy lan moo tax tey euh, ñi nga xamante ni ñu gis la tey fii nga xamante ni moom mooy ci AIBD. am contentement rek ci sama jigéen sama xarit Viviane te ku ne xam na ne ni ma mel ak Viviane kon yàlla na ko yàlla defal jàmm moo tax ma indi ay tama yàgg naa ko teeru si waaye bii dafa rawati mhm. parce que ndaje bi mu demoon. Mhm. ay ponk la fa nekkoon. Mhm. mu jël ndam li mhm. kon yàlla na ko yàlla defal jàmm mhm. waaye nag li war naa mën a ne borom bis ni mel ndax Viviane ku aw Youssou Ndour ba tokki wallaay ah def ay variété ah rampe ma naan mag ñee ko jàngal waaye moo jàngal ndaw ñi guy gu gaa ngi mu jéewul puso bi mu réer barki alxuraan alors merci beaucoup ami chers fidèles téléspectateurs ba tey euh, ñu ngi ci euh, aéroport bi mais dañ fee fekk ne koo xamante ni ni référence la euh, bien sûr moom it mu nekk monument ci milieu bi nga xamante ni parce que ci showbiz bi day defar mais musta yàq lépp loo xamante ni fekk na ko mu nekk loo xamante ni ni rafetul mu daal di koy xool nu mu ko defaree waaye ba jox ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy population bi mais yoon la ñu fekk ko fi nga xamante ni ni moom mooy fi ñuy terto Viviane alors ma daal di koy nuyu mu nekk Idadi maa ngi lay nuyu. sama frère maa ngi lay ziar baax di la jox sa wàcc waay di gis eh, di leeral eh, ñi seetaan eh, leeral point net yëpp macha allah muy site bu mag yaakaar naa ku nekk koy seetaan ci àdduna di la ziar yow macha allah nga nekk animateur boo xam ne macha allah comme li nga wax rek yàqoo aar bi yàqoo li nga xam ne moo di milieu showbiz bi macha allah sa liggéey rafet na di la sant di la gërëm bu baax di nuyu sa caméraman alors tey dun la laaj di toog fii naan la lan moo waral sa teewaay parce que loolu wax bu yàqu la dama lay jël micro bi rek jox la nga wax lu la neex parce que ñëpp xam nañ ni dañuy teertu ki nga xamante ni moom mooy Viviane Chidid. waa dëgg la ñu teertu tey ñu ngi fii ci aéroport yaakaar naa boo tey boo xoolee toute la presse sénégalaise ñu ngi fi tey kan la ñuy jël si tey ñu ne Viviane bu ñu nee Viviane yaakaar naa jarul Sénégal àdduna ñu koy présenté kenn ku nekk xam na ki nga xam ne mooy euh, le roi du mbalax muy euh, Youssou Ndour yaakaar naa ko fa jógee tey rampe ba ber sa daara ba tey euh, ñuy jox la trophée bu mel nii sigil nga Sénégal sigil nga li nga xam ne mooy musique sénégalaise bi parce que lii lañ soxla ci Sénégal tey dañ ne musique bu ñu ne musique ne culture Sénégal musique bi dafa xoon wàcc trop showbiz bi dafa xoon wàcc lu bare bare ci musique sénégalaise bi waaye tey booy xool at yi passé musique bi mu ngi jógaat parce que ñun ñoo fi ci Afrique ci musique mais booy xool yeneen dëkki léegi dañoo ñëw carrément rombuñu ci musique bi te li ko waral mooy yaanante euh, bi yàqante lu bon li mais ku xool bi an xam ne ba mu nekkee ci li muy liggéey ba léegi fulla ak jom ak bañ di tontu parce que loolu dafa baax ci artiste lu ne lañ lay wax la artiste dañ wax lu nekk mais xamal sa objectif xool fi nga jëm bañ di gestu parce que boo gestoo rek fakastalu xëccoo ji woon ndam loo xamante ni artistes yi nga ko bokkaloon yépp bari nañu suñu boroom teg ko ci sa loxo wax ban yëg-yëg nga am tey. sant euh, sant yàlla bu baax euh, euh, nga tey liñ naan Afrique ñun ñëpp ko bokk. mais tey ñu seppi la ci tey nga jóge Sénégal muy sama dëkk ma yor drapeau bi di ko tiitaroo. ñu tànn ma. Euh, pour ma dem jongante jeeg samay samay euh, samay nawle artiste mhm. donc ma fekk fa ñu mag a mag a mag ñoo xamante ne vraiment euh, mun naa ne ñooy vraiment àddina xam nañ leen mhm. àddina bi yëpp leen dañ leen xam mhm. donc tey sunu borom bi def ma gagné damay sant ndax xam nga lu tax ma gagné Sénégal Sénégal moo tax ma gagné li may wax rek boobu ba tey ma ne leen nu ma mel rek Sénégal ñoo ma ko def ko def tey euh, ba ma commencé ba tey sama carrière euh, Sénégal ñoo ma may doole su ma génnee ñu bëgg ko lu ma def ñu bëgg ko tey su ma demee ba am ndam li ñoom la ñoo voté ñoom ñoo ma bëgg ñoom ñoo ma teg fii euh, sant yàlla bu baax kontaan di leen delloowaat ndam li alors merci beaucoup amis chers fidèles téléspectateurs gis ngeen ni euh, kaddu yi nga xamante ni Viviane wax na ko euh, comme li ñuy wax rek daa bari nit ñi ah nit ñi ñëw nañu xale yi ñëw nañu euh, fan si ñëw nañu alors def nañu tout nag pour am quelques kaddu yoo xamante ni Viviane jox nañ ko en exclusivité merci beaucoup aussi amis chers fidèles téléspectateurs merci beaucoup yéen ñi nga xamante ni yéen nekk ci seen i kër merci beaucoup lii nga xamante ni moom la def yëpp pour que yéen ngeen di am les informations waaye moom la ñuy def pour que yéen ngeen daal di kontaan lool merci beaucoup yàlla leen yàlla defal jàmm alors Nakata jërëjëf merci beaucoup si à toute l'équipe technique alors ñu ngi leen di kontaane merci beaucoup